mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak télévision Futur Média ni ñu ko baaxoo mardi bu nekk ci heure bi seen émission déclic yegg si nañu ci déclic ak ñi ma ci faral di àndal ngir ñu dalal gan goo xamante ne ji euh, ku ñu ràññee la ci réew mi gan goo xamante ji ku am baat la ci réew mi gan goo xam ne euh, waxtaan wi seex ak moom dina bari luñ ci mën a gan googee ñuy dalal tey jii ci seen émission Talla euh, ci carrière politique am ba fii jot na ko ko occupé euh, mais moom euh, honorable député Mamadou Diop Decroix la ñuy dalal ci kanam tuuti bari nag loo xam ne war nañu ko mën a waxtaanee ak moom benn mooy lu jëm ci moom ci jëmi boppam waaye it lu jëm ci actualité bi moo xam wàllu politique la ci wàllu sous région bi ak yeneen i ponk déclic nag duma ci wet di ci faral di ànd ak mm, ay journalistes yu rédaction bu Groupe Futur Média maa ngi ak Ajaratu Binta Diallo Adja maa ngi la fay Pape Djibril du nuyu les téléspectateurs de télévision Futur Média Pape Djibril Fall moom it euh, di ànd ak ñoon ci déclic mm-hmm. tey ñuy am gan gu mat gan di honorable député Mamadou Diop Decroix Pape Djibril nuyu naa la mm, di la fay bu baax euh, Mamadou Mouhamed di kontaan ci retrouver plateau déclic di nuyu Makumba di nuyu Soxna Adja Binta Diallo di nuyu Sénégal yi ñuy seetaan yëpp si biir réew mi ak si bitim réew di ñaan yàlla euh, waxtaan bi am njëriñ incha allah bon rafet naa ci njort ndax gan gi ñuy daal tey mm-hmm. mu di koo xam ne sénégal yi fu ñu yëg ne dañu ko fay invité mm-hmm. fu ñu yëg ne war na faa wax fu ñu yëg ne war na jël kàddu dañ koy bàyyi xel ndax lu bari loo xam ne mën nañ ko jàngee ci ay waxam d'autant mm-hmm. plus que nit la ko xamante ne ji ni ko tubaab di waxee avarul ci ay réponse euh, généralement lu baree bari tey boo ko laajee dana jox réponse yi nga xamante ne ji du ma ne totalement li ñu ciy xaar mais dana ci wax la mu xam et puis ñun moo ñu fi teg euh, Makumba Bey Mhm. maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Mouhamed nuyu Binta ak Pape Djibril di xaar gan gi mu yegg si honorable nuyu itam ñi ñuy seetaan yaakaar ni waxtaan wi dina leen amal njariñ déclic ñun la ak yéen waaye ñun ak internautes yi ñu mën a jaare ci suñu ay plateforme ngir di poser seen question ngir di mën a suivre émission déclic mais également di wax joxe seen appréciation ci gan gi nga xam ne moom la ñu am loolu nag ñu ci ànd ak ci wàllu wale euh, mamadu Ndiaye fare ci kon euh, suñu suñu suñu suñu plateforme euh, digitale yi mamadu waaw gan gi tey moo di Mamadou Diop Decroix internet yi téléspectateurs yi fu ñu mën di nekk ci àdduna war ko mën di suivre eh. war a ànd ak moom ci li nga xamante ne ji moo di question yi ci waxtaan wi ana nan lañ koy doxale voilà ah, naa la jaajëfal ñi nga bokkal euh, plateau bi wax nga ko tey gan gu màgg lañu am muy Mamadou Diop euh, Decroix nekk koo xam ne kenn dootu ko présenté fii ci Sénégal hmm. ci histoire politique nekkoon fi ministre wax nga ko nekk ci jamonoy wàdd la nekk bokkoon ci 68 taar yi déjà bi ñuy posté euh, information bi ci réseaux sociaux yi gis nañ ni ndaw ñu ku ci nekk dafa ñëwaat ci loolu xam naa dina ci ñëw moom tamit wax wax jaar-jaaram ci année 1968 yi mais surtout expérience am ci wàllum politique di wax ni internautes yi ñoom ñi nga xamante ne dañuy safoo saa waxtu bi jotee euh, ñu scotché wu ci seen smartphone wala ci seen machine xam naa ne ñoom ñëpp sax smartphone la ñu utilisé hashtag bi min ngeen ko déclic la wala déclic TFM mu nekk hashtag bi nga xamante ne moom lañ leen jagleen ngeen am possibilité réagir ci tey si émission bi invité kii di Mamadou Diop Decroix ci situation politique taxawaayam mais surtout ci période yi nga xamante ni nekk na période yu am solo loolu nag euh, bu leen fàtte seen ay question la wala ay euh, laaj yi nga xam ne war ngeen gis ni war ngeen ko mën a laaj yéen internet yi hashtag bi euh, déclic la wala déclic TFM moom nag am na taxawaay bu am solo ci réseaux sociaux yi nekk na koo xamante ni donte sànq nee naa jamonoy réseaux sociaux ñoom dafay bees ci ñoom ñoom année 68 yi ñoom ñi nga xamante ni fekkee nañ démb nañu bokk nañ ci mbiru xarala yu bees yi donte ñun sax dañ naan nekkul lu bees waaye am na ci taxawaay bu am solo ci page Facebook gis nañ ni bari na ci ay nit ñi nga xam ne ñu ngi koy suivre li ci gën a am solo mooy vidéo bi nga xam ne def na buzz nag ci jamono yee nga xamante ni demoon na fa ci mbirum sédiment beeg euh, gannaaw ba mu ko posté ci page Facebook bu officiel gis nañ ni ñëpp dañ ko daal di reprendre mais surtout la fa xewoon nekkoon na gis nga nuñ ci ñëwaat nekkoon na loo xamante ni lëmbee woon na réew mi gannaaw euh, vidéo yi nga xam ne moom euh, Mamadou Diop Decroix partagé na ko ci page Facebook am. mooy mooy mooy jamono jamono ji ñu demee ndeng leer ñu génne leen fa fetal du boobu la. Hmm. voilà boobu la mooy vidéo bi. mais moom est fetal war na koo jaaxal dafa mel ne jaar na armée de suma juumul. <laughs> waaw peut-être xam naa ne gars yi du ñàkk ñuy laaj façon laaj yu ni mel ndax ndaxte moom mu indi ci ab tontu mais en tout cas daal def na vidéo bi nga xamante ni mbirum ba mu demee ci mbirum nengleer yeeg yëfi sédiment yi ci indi woon na fi coow juróon fi euh, vidéo boo xam ni comme ni ñu koy waxee vidéo viral la mais euh, di fàttali ne suñu mbokku internet yi Mohamed war na am nañu possibilité réagir ak hashtag bii di déclic wala déclic TFM seen ay réaction dinañ ko taataan ci kanam ñu ñëw partagé ko ak suñu invité di moom Mamadou Diop Decroix muy la am solo Mamadou Ndiaye dañuy ànd ak yow ci kanam tuuti ngir xool internet yeeg euh, seeni question mais taxawaay beeg appréciation bi nga xam ne am nañu ko ci ganu Déclic tey mu di euh, honorable député Mamadou Diop Decroix gis ngeen ko sànq mais bala ñu koy jox kàddu gi muy nuyoo euh, dañ leen di gën a xamale ak moom gën leen a xamale ak invité ganu Déclic tey portrait bi ñu ànd ci ak Cheikh Tidiane Diawo ñu ràññee ko ci xar kanam mi représenté gauche di ab idéologie ci langu politique fii ci Sénégal parcours contestataire bi mu am ci ndawam di firndi loolu Mamadou Diop Decroix mai 1968 bokkoon na ca université Cheikh Anta ci mouvement contestation bu métti boobu nga xamee ni yëngaloon na sax nguurub Léopold Sédar Senghor mu àndoon ci ku ci mel ni Abdoulaye li ak Omar Blondin Diop ci noonu sax lañu ko dàqee ci université dugal ko ci l'armée bi ci lu dul coobareem ci lango politique bi ñu xàmmee ko ci aj mu nekk loxob Ndeyjoor Landing Savané ci campagne yu bare waaye 2009 la àndandoo bi dakk ba yoon sax mu mujjee àtte cour d'appel bu Dakar àdduni Mamadou Diop Decroix mooy wéy di jiite AJ/PADS ci diggante 2000 ba 2009 mu nekk ministre ci nguurub Abdoulaye Wade yor fi département yu mel commerce ak tamit culture ak communication tey jii bokk na suñu teewal la ku gi te dialogue national. Cheikh Tidiane Diaw mu ngi noonu doon ñu gën a xamle ak euh, ganu Déclic tey di honorable député Mamadou Diop Decroix maa ngi koy wax sànq li ñu war a mën a waxtaane ak moom li ñu mën a jànge ci moom li li ñu mën a xame ci moom dana dana bari mais bala ñuy sori ngeen jégal ma tuuti euh, ñu jaale ci turu groupe Futur Média Euh, ki nga xamante ne ji moo di xalif général des lia des Layènes di Baye Ablaye Thiaw Laye ak tiis yi nga xamante ne ji du man sax ne euh, gàll na ci ndoddul axlu laay waaye dafa gàlle ci ndoddal diine gàlle ci ndoddal euh, réewum Sénégal mu di ay doomam yoo xamante ne ji dañoo wuy ji yàlla sunu borom ci turu groupe Futurs Médias ci sama kaddu ñi ngi ko koy jaale di ko jaale njaboot gi di ko masaw bu baax a baax moom jàmbaari l'islam jooje di Baye Ablaye Thiaw Laye bon parenthèse la bu ñu tijji woon rek léegi nag ñu yegsi ci suñu gan moom Mamadou Diop Decroix honorable député maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay euh, Mouhamed. bàyyi la nga nuyoog téléspectateurs yi. waaw ginnaaw ma sant yàlla bu baax julli ci yonent bi alayhi salaatu wa maa ngi jaal euh, comme ni nga ko defee. Mhm. Euh, Baye Ablaye Thiaw. xalif général Layène ci suba dem naa fa jaale ji voilà tase d'ailleurs ak délégation Cheikh Mountakha xalif général Touba. Mhm. Euh, di ko jaale itam jullit yëpp ak sénégalais yëpp mu ngoog euh, di nuyu itam di leen gërëm di leen sant ci dalal bi ngeen ma dalal ci seen ëtt bi euh, profito ci itam nag di nuyu ñi nga xam ne ñi ngi ñuy seetaan ci TFM ci dëkk Déclic tey ji góor ak jigéen mag ak ndaw ñi ci senegal ak ñi ci bitim réew ñu it mbégte am tey di la remercier ci wuy si bi bon Futurs média moom du sa doo fi gan sa kër la yéen nañ la fi xaaju guddi ci D'clique ngeen nga wax ak euh, invité bi fi woon di euh, Talla Sylla donc loolu fi la ma fekk mbégte la ñu am ma bàyyi la ak sama gars moom arbitre taxawaay arbitre lay taxawee euh, ndax non seulement dama ko sopp mais dañu bokk tur donc du ma mën a bokk ci débat bi te infériorité supériorité numérique laay bañ li Seydou Gueye doon wax gars yi yéen a ngoog honorable député Mamadou Diop Decroix ngoog Kumba. Pape Djibril xanaa kon ñu tàmbaleek euh, tolluwaay réew mi ñu gis ni fi mu ne nii émigration clandestine bi mu ngi euh, jolliwaat bu baax a baax ndaw ñi nga xam ni dañuy euh, préféré jël gaal wuti Barça yemale kook dem Barsàq fi mu ne nii lan nga jàpp ni moom la ñu war a def ba loolu dakk ak lan nga jàpp ni fi mu ne nii foofu lañ toll ba mu mel na mu meloon atam bi fi bi ngeen fi nekk ak Ablaye Wade. jërëjëf Macoumba. laaj boobu daal mën naa ne tey lépp lu ñu fi waxtaane rek laaj boobu ëmb na ko ndaw ñi ñooy dem ñan ñooy dem ñi ëpp jom ñi ëpp jom daanaka ñooy dem waaye déet waaye honorable waaw ñi ëpp jom am nañu jom waaw ña ngay waaj <laughs> ña ngay waaj dañoo amagut poset dem buñ koy am di dem euh, Sénégal ndaw ñëpp am jom daanaka. daanaka euh, li gën a garaaw ci dem bi mooy ñàkk yaakaar yaakaar ju tas parce que àddina lu mu tolluwaay lu mu metti metti metti su dee yaakaar a nga fa yaakaar de mooy ëpp doole mettiwaayu mm-hmm. euh, tolluwaay ba mm-hmm. waaye bu yaakaar toxoo moom dara di suuf pour man loolu moo gën a metti ci sama xol euh, ci ci ci ci vraiment dem bi je parce que ça veut dire que il no plus qu'un espoir amatuñu daal yaakaar loolu euh, la ñu war a jëkk jëkk jëkk régler ci réew mi évidemment dafay dafay dafay firi itam tolluwaayu koom-koom bi firi tolluwaayu coono yi nit ñi firi li may firi daal lépp lay firi mhm. ma ma kumba mhm. kon nag noonu laa ko jàngate en tout cas euh, am na benn euh, rapport bu ñu ne génn na pour organisation internationale du travail euh, ñu ngi wax ne rapport bi amul mais ñu ngi wax que ne 48 pour cent ou même plus de taux de chômage au Sénégal maanaam Sénégal moo jël troisième place ci wàllu chômage gannaaw Burkina Faso ak beneen réew Euh, ñoom contesté nañ ko nee nañu eggul ci quarante 48 pour cent expliquer nañu 48 pour cent yi lan moo ko wund mais yem nañu ci ne on est à 16 virgule de taux de chômage ce qui veut dire que bi Wade di dem on te à 10 pour cent ça veut dire que ñoom bu ñu egg egsee kon mille emplois yi nga xam ne diggoon nañ ko askan wi ça veut dire que kon xëy na yegg si wuñ ca moo tax 16 pour cent 10 pour cent yi tegu na parce que la preuve mooy que xale yaa ngi dem seen yoon te nee nga ñeneen ak ñeneen dinañ dem xëy dañoo gisagul yoon wi jafe-jafe yi nga xamante ne digoon nañu askan wi pour jëlee ko fi dafa mel ni dafa gën a tar. waaw loolu moom lu am na euh, wàllu liggéey foofu it ba tey dama ciy profité di wax ne nun ni ñuy li ñuy jàng ci école yi yu mag yi université école supérieure ak yooyu. ci ñaare di ko jànge ci école yi tubaab yi ñu di ko jàng aussi ci ñoom seeni schéma ak yu mel noonu euh, ñaare day waroo ak sunu réew yi ni mu tëdde ni muy doxe bu ko defee boo bëggee jël jumtukaay yooyee natte ko euh, réew mi ni muy doxeek fi mu toll dangay ngay juum ndax euh, chômage dañ koy am luñ koy tekki maanaam koo xam ne da doon liggéey ñàkk liggéeyam koo xam ne am na métier di wut liggéey nekk sur le marché du travail koo xam ne xëy na toll na ci liggéey war a liggéey yooyu yëpp soo ko boolee euh, bëgg koo atte euh, te ni ko tubaab bi di atte doo ci génn loolu moo tax même 48 pour cent bi ñuy wax bu fekkee dañu ko appliquer ci tubaab bi ni ñuy doxale mën na koo ëpp parce que Sénégal boo ko seetloo euh, secteur formel bi moderne bariwut ñi ci nekk euh, damay bañ a joxe ay chiffre di juum ki yu mel mais dafa néew li ci ëpp mu ngi ci informel informel bi euh, entreprise yi fi nekk Sénégal sénégalais di liggéey quatre-vingt-dix quatre-vingt-dix-neuf peut-être pour cent ci informel bi lañu nekk informel bi euh, amuñu capacité am ci marché public yi marché public yi euh, daaw jaaw jéeg xaw ma toll woon na ci juróom-ñaar téeméeri milliards ak lu topp mais li ci euh, informel bi am bariwut parce que pour nga am ci il faut nga am nekk ci banque bi Euh, formalisé ñu xam la di la et cetera et ci mën a am kon ñan ñoo koy am waa bitim réew xam nga bërki démb ci euh, le 29 septembre bi président Macky Sall defee euh, rencontre conseil présidentiel ci plan bu bees bi mu ne moom lay yëkkati mm-hmm. Serigne bu jël na fa kàddu mooy mm-hmm. président chambre de commerce mm-hmm. nee na ko am na 3000 milliards yoo xam ne ay marché yu yu nu rëcc nun Sénégal yoo xam ne man nañu ko liggéey du loo xam ne dañu ko mënta liggéey ñu jox ko ay jàmbur déedéet man nañu ko liggéey waaye xëy na yeneen a tax ay jàmbur jël ko ñetti téeméer ñetti junni milliards trois mille milliards kooku c'est vingt pour cent ci suñu PIB kooku bu desoon kon xëy na ma kumba gars yi duñu <laughs> song mbëkk mi jël gaal yi mais man fi nga xam ni peut-être dégguma bu baax ni nga waxee mooy bi nga ne ñi ëpp fit ñooy dem wala ñi gën a doon jàmbaar est-ce que nekkoo di leen kañ ñaax leen ngir ñu gën a yabu ci yoon yi te loolu du sa cër non dama koo jàngal rek joxe guma joxe guma man sama xalaat hmm. dama koo jàngat maanaam maanaam képp ko si mu ne koo xale boo gis euh, amut xëy yaayam a ngay làqar ci nu mu mën a demee hmm. du caagee nu ne leen dem leen dem ndax foofa baax na non mais ñoom xam nañu la fa ne. non mais xam nga li xaw a doy ko de. mais li xaw a doy waar mooy comme li ma ko ma di wax bu déggee nga ne ñi ñi am jom ñooy dem ah ku fi toog danaan xëy na man ci yaafu si laa bokk. est-ce que foofu tamit ah. euh, honorable defoo tuuti. erreur de de de maa la ciy gërëm day tax ma mën a. leeral ma bëgg a wax maanaam. Mhm. dama bëgg a wax ne ñi dem dañoo bëgg a tekki. Ah waaye ñi demut ñi demut ñi demut ñi demut. def te amuñu fu ñu téye waaye demuñu jàpp naa ne dañu ko mën a gudd. mooy li nga wax yaakaar a tas. waaw maanaam ndaw ñi amatul yaakaar. moo ëpp moom leer jàngat bi ëpp solo. ci laaj bi defe naa mooy yaakaar ji toxu. Mhm. loolu moo ci ëpp solo. te donc leader politique koo xam ne danga nga fas yéene su su ko Sénégalais yi euh, euh, nangoo nga doxal réew mi kooku war na laa tere nelaw nooy fexe. ba yaakaar dellu siwaat ci ndaw ñi ba lu mu metti metti ñu toog mën a soppi réew mi parce que yàlla du wàcc di ko soppil boppam avant Pape Djibril Binta dafa am fu mu ko interpellé dégguma mu tontu ci mooy nee na Wade bi mu fiy jógee waxoon na ne di pour cent taux de chômage ci la toll euh, ñi fi nekk euh, ñoom nee nañu 16 virgule te euh, rapport bi ñu am 48 et quelque la la la wax président Macky Sall bi muy ñëw diggee woon suma juumul 500000 emplois ma 5000 emplois 500000 emplois Euh, écart boobu am fekk fi 10 pour cent léegi ne mi ngi ci 16 pour cent ba noppi am ñu fi diggee woon xanaa politique de l' emploi moom yow ci sa gis-gis dafa dafa doxul waaw xam nga politique de l' emploi mhm. non àddina ni muy doxee mhm. ak Sénégal ni muy doxee lépp loo natt ci côté yooyu da nga koy wékk ci économie buy dox économie su doxul mënoo am 500 000 emplois su doxul mënoo sa moo tax d' daal di ne dinaa créer cinq cent mille emplois loolu xeluwut économiquement parlant xeluwut yow li nga li nga war a toppatoo mooy nooy fexe ba machine économique bi di fonctionner di dox su su doxee rek mën naa ëpp sax cinq cent mille secteur privé bu am solo secteur privé national bu am doole oui xoolal trois mille milliards yi euh, Serigne Boub doon wax mais trois mille milliards su desoon ci réew mi ah, le PME PMI yor ko di ko doxal ñaata emploi la. du jeex du xaaj léegi loolu tamit la problématique de l' bu fekkee ne taxaw nañ ci. Mhm. Euh, c' est vrai c' à dire que muy régime bi fi jógee muy bi fi nekk nii yëpp kenn ku ci nekk loolu moo nekkoon sa combat bi gën a mag muy régler question chômage bi wàññi bu baax ndax réew yëpp la sonal mais secteur privé national bu foor boobu dafa mel nii ni ci nii nii ni régime. bi bi fi président Abdoulaye Wade yoroon jafe-jafe yi mu ci amoon dafa mel ni yu ni yu ni toll wala yu ko raw la ci président Macky Sall fan la difficulté bi nekk ba nañu am secteur privé national boo xamante ne dina am doole ba mën a résorber gabu chômage bi alors euh, option option gouvernement c'est-à-dire am na ay ay ay lacunes ci secteur privé national mais loolu état moo war dimbali secteur privé national accompagner ko ba lacune yooyu jóge fi non euh, ñun danoo war a euh, am fayda ci suñu bopp man nekkoon naa ministre du commerce ñaari yoon hmm. nekk naa ko jóge fa ab àddina bi am na mu bindoo président Wade woowaat ma ma nekkaat commerce xam naa bu baax ni mu demee hmm. waa organisation mondial du commerce xamoon nañ ma fa lool boo demee APE les accords de partenariat économique avec l'Union européenne xamoon nañ ma fa lool européens yi mhm. ak américains yi li ñuy subventionné seeni production surtout agriculture kenn xamut nu mu toll deux mille quatre cinq bi ma nekkee ministre du commerce États-Unis vingt mille cotonculteurs la ñu amoon maanaam ñaar fukki junni nit yuy yëngu ci wëtteen nun amoon nañu Afrique euh, bi bay coton hmm. amoon nañu fukki million ak juróomi million yi nit yuy yëngu ci wëttéen américains yi ci moomu at jox nañu seeni baykatu wëttéen ñeenti quatre quatre mille quatre quatre milliards de dollars boo ko compté moo doon ci boobu jamono vingt mille euh, milliards de francs CFA pour vingt mille coton culteurs ñun fii suñu quinze millions yi ci boobu année ak subvention boobu tax na ba nu perte quatre cent cinquante millions de dollars lu tax parce que bu fekkee ne yow boo bayee comme Amérique manaan naa mën naa ne junniy tonnes yi xëy na jox naa la ci peut-être cent millions deux cent millions nga xam ne yow même boo jaayee cent francs génn nga ci ndax subvention bi hmm. nun mënuñu ko ndax mënunoo mënunoo ki jaay ki kiy bay wëttéen kenn subventionné wu ko maanaam gungewuñu ko doolee luñ ko daal ah doolee luñ ko doolee luñu ko hmm. kon bu ngeen ñëwee jaay ci marché bi eh, yow doo jarle kële mooy jarle parce que day day daane prix bi ma hmm. yeggale euh, président waat daf ne Bush mais président Bush yéen seen subvention yi léegi bàyyi leen ko ci wattin wi <laughs> na ko président waat yow defe war naa ne sama xarit nga bu ma bàyyee subvention yi ñu daane ma mm-hmm. dégg nga wax ji mm-hmm. européen yi bu ma la waxoon jàppatuma chiffre bi lu ñuy fay ku ku yor kuy yar nag at mu ne bopp nag bu ne lañ la cay jox kenn xamut nu mu toll su ko defee bu ñu ñëwee ci marché yàpp ci àddina bi man bu ma jaayee ñaar téeméer parce que mënumaa jaayee lu ko yées yow nga jaayee téeméer sa yàpp la ñuy jënd. ay di lox ndawal waaye monsieur le ministre. waaw sa ndawal. yaa ngi fi yaa ngi fi xolof yu <laughs> ak feneen ak foo foo foo ko foo foo dem rek noonu la mel moo tax man dama bokk ci ñi contre li ñu naan. libre échange parce que c'est pas du libre échange dañ naan free trade libre échange mais c'est pas fair trade maanaam commerce équitable loolu moo moo moo moo moo nu gaañ donc euh, soo bëggee régler problème mu Sénégal ci économie bi nga koy jaare fexe ba mu jóg économie bi li koy yëkkati agriculture a koy yëkkati fuñ ci toll keroog dama ne sama benn xarit économiste lu mu ne woowee mais man déglu naa la waaye man industrialisation la mais non dafa am li tubaab di wax dialectique gars yi dañ ko dul jàng dialectique maanaam mbir yi ni ñu likkaloo parce que mbay lépp industrie la ci mbay parce que machine u mbay xoolal ba fii mu nekk sama gars yi ci àll bi soo demee man damaa yori tool damay bay ileer nga fay fekk daba ak machine ji yooyu nga xam ne. faabar yi. Eh, eh, mu moo fa ne ah, hmm. loo ko tuddee. faabar waaw ah, kay mu ngoog alors mais loolu naka nga ciy génne doo ci génn. mais jënd nañ mille tracteurs nag monsieur le ministre. no alors problème feeru Falémé mooy indi mécanisation de l' agriculture da ngay jël feeru Falémé transformé ko. defar ci ay machine adapté parce que machine yu ñu jëndee Brésil ah, boo amul dara ku amul ndey nàmp maam waaye li gën mooy nga jël defar machine yoo xam day méngoo ak sa suuf li ci mën a defar du jeex du xaaj nga mécaniser agriculture ndox mi mbënd mi mu ngo réew moo xam ne ñetti weer ñeent la bay ci at mi te bëgg euh, du nu jëggaani mënta ne donc ndox moomu lañu ñu lijjanti boo demee réew mu ñu naa Chine mën naa toog ñaari at xëy na du taw te dañuy bay hmm. parce que lu toq ci asamaan si dinañ ko exploité taataan denc ko lu tax mënuñu ko mën nañu ko nanu dem ci réew yi koy def jàng nañu koy defee ñëw fii di ko fi def bu nu suñu baykat yi bu ñu mënoon at mu ne ñu bay ci fukki weer mbaa fukki weer ak ñaar loolu rek waxuma nga yokk machine yi waxuma nga defar semence yi bu baax waxuma intrant yi nga réglé ko loolu rek soo ko defee di nga ful revenu paysan maanaam ni ñuy am par at di ko ful au moins ñetti yoon rax waxatuma laa nag su dee ne eh, indi nga mécanisation bi indi euh, conservation parce que mbay mi daanaka dinañ perte 30 pour cent ci récolte yi parce que amul euh, conservation kooku il faut ñu régler ko ak yeneen ak yeneen. day gudd man li ma bëgg a wax mooy <clears throat> xam nga d'habitude euh, dañuy gis ne difficulté bi mooy discours yi day am solo trop ci wàllu ci ni ñu koy waxee day jàppandi trop gis nga président Macky Sall chaque jour ñu génne laat ko discours am yi bi mu nekk opposant doon na wax ne sax du yoon essence bi jaar fii dem ba Mali gën a yomb foofu. Mm-hmm. te ba mënul mënul gën a yomb fii nga xamante ni ak yeneen ak yeneen gisoon nañ aussi ci niveau de vie coût de la vie bi ni ñu ci gis nañu tamit ne bokk na ci li nga xamante ni mbas mi jàngale na ko mooy secteur yu stratégique yooyu nga tudd muy pêche muy napp gi gis nga coow li ci am actuellement muy euh, euh, agriculture agriculture bi gis nga tamit coow li ci am chaque année problème entre machinerie bi ak semence yi gis nga problème bi nga xamante ni tamit am na ci élevage bi ak un budget boo xamante ni très dérisoire bu fekkee ne am nga ay ambition yu mag alors que ñooñu mën nañoo dimbali ci emploi bi léegi man kay sama problème mooy wax nga ko léegi option ak négociation c'est-à-dire lan moo tax wax bi di gën a yomb jëf bi lan moo tax bu ñu ñëwee au pouvoir du ñu mën a sekki jéego jëm ci définitivement parce que loolu boo xoolee li tax ma koy laaj mooy 1968 ba ngay am sa taxawaay yu am solo yooyu daanaka bokkoon na ci combat yi nga yëkkati ni tey ñu koy poser sur la table booba am na réew yoo xamante ni ñoo ngi doon poser sur la table la question de l'industrialisation et ils ont su industrialiser ba jóge nañ étape boobu. absolument ñun lan lan moo tax on n'y arrive pas. waaw góore waay lu am am solo nga wax nga laaj. suñu problème bon parce que laaj bi daa bari laaj ci biir. <laughs> Euh, moo tax mu am solo. waaw waaw daa bari laaj. parce que bu njëkk bi yaa ngi se yaa ngi laaj nit ki ndax lu tax wax ji buñ ko wax waa buñ ko dee wax. mu jóg bu jëf jotee. mu am problème loolu nga njëkk a laajte fokk ma tontu ci. Euh, tontu li du yomb parce que wax moom de toute façon moo gën a yomb jëf. donc moom mais euh, kiy waxit fokk ñu seet ban euh, ma ma maanaam maanaam fu mu féete fu mu far parce que attention addina bi foo ci dem ay ay ay ay intérêt mooy tampaliko du ay ay tu ay jëmm ay intérêt mooy tampaliko ci àddina bi alors intérêt yooyu nag euh, léeg-léeg ñu ne bon ma Makumba mii war na noo mën a jàppale voilà su Makumba jàllee jàppale leen suñu nun Afrique fii ñaare c'est très compliqué pour koo xam ne amoo ay ñu ne ci ginnaaw dëgër pour nga mën a dem parce que xaalis comme ni ma koy waxee du caagéenu sax nga yor ko di ko distribuer comme ni ko ñii di defee clientèle parce que kooku it beneen aspect la ci ci mbir mi mhm. euh, ñu bari jàpp nañ ne parti politique euh, écurie la faas euh, kii nangam nangam et cetera voilà bu ko defee clientèle ah. ngay yor di mën a faj soxla yi di kii ak yooyu duñ la laaj duñ la laaj loo nar a def ci réew mi <laughs> waaw ki ma dimbali barki démb aw ma lu ma añee la pauvreté et la démocratie un gros problème alors donc yooyu euh, mais en même temps da lay xaw a soril hmm. léegi ma dikk ci nee nga bi agriculture mooy secteur primaire hmm. sànq dama ne moo war a nekk yaaku ciiriir colonne vertébrale bi war a yóbbu hmm. économie soo Euh, ay deux mille treize ou quatorze Éthiopie mi ngi woon ci maanaam agriculture li mu li mu li mu muy peese ci PIB am maanaam alal ji meññ at ba at ma dellusi si agriculture mi ngi woon quarante sept pour cent ci Éthiopie Burkina gii mu ngi woon ci vingt sept ou trente pour cent booba jamono Sénégal mi ngi ci quinze pour cent doo ci mën a génn 15 pour cent Macky deux mille 14 2014 dama la noonu. Hmm. autosuffisance en riz parce que vraiment li importer dafa bare. moo tax ma naan leen vision dafa am solo mu ne waaw 2017 war nañoo am autosuffisance en riz 2017. Hmm. noo ngi 2020 2019 xam nga ñaata la importer ci ceeb deux cent milliards de francs CFA la ñu importer ci ceeb kon xam nga ne te ceeb. du woon sunu dund tubaab bee ko fi indi yàlla xam na ko dëppoowul ak sunu sunu mbir ma am na diététicien bu ma doon waxtaanal mu di ma wax mbiru dugub ak ak ñun ak sunu jant bi climat bi nit dugub di def ci nit vraiment bañ cee sonn <laughs> euh, donc problème bi agriculture soo déggee ma wax ko boo nee napp gi dafa am nu mu war a dëgtoo ci transformation pas jënd napp jën jaay Europe ñu defar jaayaat la mm-hmm. non dañu am ay war a am ay industrie de transformation yu doy nga xam ne dootuñu fi napp benn benn bopp jën di ko di ko di ko exploiter exporter en tant que tel transformation agriculture mais gerte dañ koy transformer bisaab dañ koy transformé ñu koy waxeeti lu ñuy bay fii rek dañ koy transformé. pourquoi donc industrie de transformation. industrie lan moo tax mënagul nekk une réalité ci suñu réew yi. alors yow assemblée nationale nga nekk gis nga budget bi ñu affecté au ministère de l' industrie. maa ngi ñëw ci loolu. Euh, sànq dama ne vision. Hmm. parti socialiste bañ fi nekkee. man député laa woon. ah euh, si benn ministre bu ñëw assemblée ma ne ko yéen da <laughs> parce que seen ci ci euh, euh, nu mu tuddati euh, dañu war a développer ceeb comme léegi ceeb la gars yi tàmm mu ne ma non jaru ko parce que jënd ceeb bitim réew moo gën a yomb bay ceeb Sénégal te dëgg la woon booba jamono mais moom ñoom foofu la seen gis-gis yamoon bu fekkoon ne nag am nañu vision di nga ne ah waaw ceeb bi kat yomb na mais mën naa jafe ëllëg gi si biir kon naa ci def li ci war loolu mooy problème de vision sunu gars yi vision la ñu manqué li ci li ci fi ma ci terminé ci question mooy fit fit parce que man jàpp naa ne lii moo war a am dama war a am fitu def ko te lu ma ci góobee gar ko parce que di nga am ñu la xeex foog foog mu ñu am ñu la xeex mais da ngay jàpp ne su amee kenn ko jóg di la xeex junni ñu jóg jàppale la parce que xam nañ ne loolu. bi lañu ragal. waaw mooy li ma la la la fit no no no ah non ko kay du impopularité. est-ce que dañu ragal jël ay décisions yu impopulaire même bu fekkee ne day révolutionnaire est-ce que caractère impopulaire boobu la ñuy daw. non non pas pas non boo leen jàppale xam nga fi mu ne bu fekkoon ne man 2004 bi may nekk ministre du commerce soixante-dix mille tonnes lañ doon am ci euh, soble. la Sénégal doon bay ren bi may ñëw xooluma chiffre yi mais ëpp na ñetti téeméeri junni ton parce que bu ñu bayee soble bu paree dañuy tëj frontière yi ba suñu soble jeex looloo indi soble mu jógee juróom-ñaar fukki junni tonnes tey weesu na ñetti téeméeri junni xëy na yegg na ñeen téeméeri aw ma aw yoruma. Euh, chiffre exact yi Euh, loolu moo am solo boo ko defee ci ceeb bi def ko ci euh, pomme de terre def ko ci euh, li ci des lépp rek dinga nga mën a autonomiser réew mi te bu boobaa dangay ngay articuler agriculture industrie lourde bi def defar machine mbay ak industrie légère bi def transformation yooyu boo ko boolee da ngay am économie buy dox bu boobaa dañuy recruter ndaw ñi ba boobaa économie yi jàng agriculture jàng ñi jàng lee jàng loo ci def rek. day mën a man honorable mu bëggoon taxaw tuuti ci ci ci wàllu gerte gi. parce que am na solo ndax dañ koy bay Sénégal te chaque année dañuy gis problème ci wàllu commercialisation bi euh, te lu ma jaaxal mooy ñuy bay gerte ba war a mën a jaay bitim réew ba pare dëwlin cher fii ci Sénégal ba ñuy jëndiwaat bitim réew du ko fi dugal. Euh, ma gis ne chinois yi chaque année dañuy ñëw jënd suñu gerte gi yëpp te ñu am fi benn société ñu ko wax sonakos mu nekk fi daaw gis nga li li xew am nañu seen financement avant l'heure mais bi njaay mi taxawee chinois yi ñëw nañu jënd daanaka ba Sonacos amul woon lu mu soxla ci graine. léegi lan mooy yow jaar nga ONCAD ndax ONCAD syndicaliste nga fa woon euh, ngeen doon liggéey bu baax ci wàllu ci wàllu gerte gi kon war nga xam lan mooy solution tey. ci wàllu njaayam gerte gi est-ce que du ñu jël par exemple Sonacos c'est juste un, un une idée bu may bu ma lay laaj ñu jox ko la production locale bu ko defee Sonacos bu jëlee li mu soxla ba pare mun a mun a mun a mun a jël li ci des jaay ko à l'exportation pourquoi pas bu ko defee sénégalais gis ci seen bopp ci ci ci mbayum gerte bi nga xamante ne on fait des un million et plus de tonnes mais à l'arrivée tout est cher gerte gi day cher pour le consommateur dëwlin bi aussi Donc, c'est quoi euh, la solution Bien. C'est quoi la solution Quel le problème d'abord euh, tubaab bi bi mu fi nekkee dana Sénégal gerte ngeen may bayal amu fi woon de tubaab mbay ko fi dugal maali Burkina wëtteen ngeen may bayal Guinée euh, euh, banaan Côte d'Ivoire café cacao ba tubaab bi demee soxna si fentaatunu sunu mbay fentaatunu sunu école fentaatunu sunu wérgu yaram nañ ko fi bàyyi woon lañu ko wéyalee <laughs> ba fii mu ne nuy lang culture monoculture arachidière di ko lang lange <laughs> loolu mooy problème bi mhm. <laughs> foofu ngay tàmbalee mooy problème bi léegi chinois yi yow bu fekkee gerte yooyu pare gouvernement bi ne waaw seen yaa nangam nangam dinañu jëndee eh, ñaar nañ na juróom fukk chinois yi ne waaw ñun dinañ jënd juróom-ñaar fukk baykat bi ku muy jaay. chinois bi chinois bi lay jaay. donc c'est des problèmes assez complexes mais li ma bëgg a wane rek mooy solution moom fokk moom xoolal huile de palme bii ma bu ma nekkee ministre ko te ma daan am problème parce que gars yi dañuy ñëw voilà huile de palme Malaisie bi dégg nga ma am egsi na fii nangam nangam dem naa Malaisie. avion bi bi ñu dugg duggee ci réew mi trent minutes avion bi di ko naaw ñu ñu ñu ñuy survolé euh, ay ay niñ ko tuddee euh, euh, tooli palmier palmier yi dégg na Casamance gi lañ ko jëlee ak Côte d'Ivoire <laughs> alors du du loo xam ne yàlla da ko def ci nit ku ñuul pour mu des ginnaaw c'est pas vrai lu ñu teree fent ñun. problème bi xam nga lu mu. tubaab bañ fi jógee dañoo tànn seeni nit teg leen fi. mais loo jeex na ki fi nekk nii xanaa Sénégal la jeexut système boobee nag. système boobee moo fi ne ba tey xam naa dinañ ci dikkaat. analyse problème politique yi. ce système boobu moo fi jóge wut xam nga tubaab yi bon. très bien juñu na ko est-ce ci wàllu politique ndax. Euh, bari na mais beneen question foofu Mamadou Mouhamed. mooy ci ci agriculture bi ndax dafa am solo trop. ay am na solo mais tey est-ce que jàpp nga ne Sénégal mën na envisager moom rek politique agricole am ndax d'abord question bu njëkk bi mooy assemblée nationale nga nekk toujours sa éclairage dañu ci soxla ndax dañuy am ay campagne agricole di ko enchaîner wala ndax am nañ une véritable politique agricole loolu mooy laaj bu njëkk bi. beneen bi mooy ndaxte dañu waroo a envisager suñu politique agricole à l'échelle sous-régionale comme ça par exemple jéem a dox ak yeneen réew yi nga xamante ni ñun ñoo bokk koom ñu xool nan la ñuy amee une politique agricole commune comme ni ko yeneen réew réew yu mag yi defee. bien sûr <laughs> euh, bu njëkk bi gars yi amuñu politique agricole non amuñu ko parce que bu ko amoon kon ñu déséquilibre yi am ci agriculture bi ñu réglé ko kon. dinañ fexe ba paaru agriculture ci PIB maanaam ci euh, euh, alali réew mi gën a mën a yokku kon dinañu fexe ba agriculture familiale parce que xiif ak xiif dafa war a toxu ci Sénégal parce que xiif du rekk maanaam euh, war a añ diñe walla war a reer fande non mais c'est aussi qualité wu li ngay lekk parce que boo waree reer eh, amoo loo reere bon non dafa war a toxu te loolu li koy régler c'est l'agriculture familiale mm. bon mais day gudd <laughs> dama koy dama koy dama koy eh, dund man eh, man euh, sama vision dafa dem ba tuddewuma affaire bi ay euh, pêche agriculture euh, agriculture élevage non dama ne mm-hmm. il faut une économie rurale man laa ko tudde économie rurale nga xam ne day articuler c'est quoi la ruralité waaw la économie rurale <laughs> mooy day articuler nap mbay euh, euh, càmm ak artisanat yooyu ngay dajale am noo ko doxale ruralité bi lu si wut si lan mooy ruralité économie rurale c'est par rapport ak li li ñuy développé ci ci villes yi euh, par exemple les services dans les villes mm-hmm. ca peut, ça peut être ça, les villes, euh, les services, euh, etc., et peut-être euh, certaines usines. Mais la notion économie rurale laa bëgg a wane ne euh, boo ci départ président Mamadou Dia loolu defoon na ko hein mhm. ministre de l'économie rurale mhm. donc foofu laay foofu laay waxee ñu ñëw ci ci ci wàllu politique bi bon man xëy na damay bàyyi ngeen doxal mais bëggoon naa am appréciation bi nga xam ne am nga ko ci assemblée nationale ak bureau bureau yu renouvellement yi ñu fa def ak euh, bureau yu yu bees yi ak ni mu tëddee. amul amul particularité hein. Mhm. franchement bon majorité bi ñoom ñoo presque nekk ci bureau bi hein à part. Euh, ci opposition président groupe parlementaire ak huitième vice présidente euh, yaay maan Albis à part ça. vice président yi ci majorité bi la euh, secrétaire élu yi ci majorité bi la questeurs yi ci majorité bi donc ñoom ñooy seet ci seen biir nu ñuy répartir wu affaires yi euh, bon en tout cas particularité ren bi mooy euh, bon Moustapha Cissé Lo Abdou Mbow sama jarbaar remplacé na ko mais ça c'est c'est la vraiment la majorité awma lu ma ci apprécié léegi des bi par contre par <laughs> contre comme danga ngaa ubbi euh, buntu politique bi ma wax la ne euh, euh, assemblée nationale suñu constitution yi tubaab yee ko fi bàyyi tubaab yi ñoo la ñu rëddoon daanaka de léeg-léeg nag ñu soppi cay ki waaye toxuwut torop dama leen ne Sénégal dafa amoon régime présidence parlementaire parlementaire président Mamadou Dia moo yoroon réalité pouvoir ci Sénégal nañ ko tuddee woon président du conseil de gouvernement xam bokkut ak premier ministre léegi yii de président du conseil de gouvernement premier ministre léegi sax mook alors euh, moo yoroon pouvoir bi mhm. Senghor euh, moo doon non mais am ah, moo doon président de la république gars yi jaxase leen pour des intérêts attention gars yi dañ naan waaw Senghor daa xuloog Mamadou Dia non du jëmmi Senghor ak jëmmi Mamadou jaa non ku ci ne dafa am ay intérêt yoo doon défendre mhm. président Dia jàppoon na ne war nañoo mën a euh, nangu ay yëf ci tubaab yi yor ko di ko doxal pour génn réew mi ci coono yi mhm. Senghor bon gise woon na ko neneen Euh, mais ba ñu fexeelee président Dia ba jëlee ko fi la Senghor yoroon da koo garde la Mamadou Dia yoroon da ko mu mu jël ko boole koog li mu yor loolu jur ne kon assemblée nationale dafa nërmeelu ba mu nërmeeloo 62 ba tey jógagut loolooy sunu situation. léegi bala ngay génn assemblée euh, nationale. boo jëlee yeneen mhm. réewu Afrique yi les conférences nationales. Mhm. conférences nationales yooyu. moo jur assemblée yi nekk ci réew yu bare foofu moo tax assemblée yooyu sax boo koy seet moo xaw a ëpp doole assemblée Sénégal euh, ci ci député yi bala ñuy sori may bàyyi ak euh, ñoom Binta ak ñoom Pape ak ma euh, Makumba dafa am benn député ay miru ñëng boo am déclaration boo xam ne def na ko ñu bëri doon xaar ay sanctions ci moom dégguñu ci dara à part ay lettres d'excuse ou bien ay yenn sorties ñu am yow taxawaay bu ñu dégg nga amee ko ci kàddu yoo ci yëkkati ndax mën nga ko baamul téléspectateur yi loolu lan la Dembouri muy euh, Alioune Dembouri Sow lu euh, <laughs> mm-hmm. bon c'est quand même très sérieux hein c'est très sérieux euh, bu fekkoon ne Dembouri benn waay la buñ dajeel fële rek ca marché ba muy waxaale ay carax amul benn problème bon parce que il faut du tout pour fair un monde mais député la Dembourou député la Dembourou lu muy defati assemblée jël leen jaas yi ku fi nara xañ Macky Sall troisième mandat cor leen ko te bu pare ngeen jox diw loolu nga wax ko ba pare ñëw ci assemblée boo xam ne dañ ne national maanaam askanu Sénégal la fi toogal bépp waaso nga ñëw toog assemblée mais loolu lu yéeme la hein man day mënuma koo comprendre c'est-à-dire que man naa xam nit euh, wax ay loo xam ne vraiment war ta mën a jib ma comprendre ko ca nit ka fa mu toll waa jéem ko ca nag jële ci wàllu yee ci wàllu euh, euh, ma ma ma jàngal ci wàllu yar ci wàllu xamle waaye koo xam ne dem nga ba nekk député même bu fekkee ne yow ba ngay ne député e, xamoo lu bare parti bala def député na la xamal lu lu jaadoog lu jaaduwut ak lu war lu warut waaye yow xàmmee penkook sow <laughs> loolu <laughs> dafa doy waar mais yaakaar na fi mu ne nii. et c'est très grave parce que am na réew yu loolu amoon xam nga ñaare gars yi euh, tubaab bi dañu am benn proverbe bu ñuy wax ne il faut pas croire qu'on est sorti de la cuisse de Jupiter maanaam daal lii xew. feneen lay xew du xew ci ñun. Mm-hmm. te bis bu ne day. Mm-hmm. ñu yóbbu mbokk ci armel ya denc ko. Mm-hmm. waaye dañuy jàpp ne ñun. daanaka jotagut. mais lan nga yaakaaroon ni moo ci war comme traitement dafa waroon a jóge ci assemblée nationale. wala dafa ah, waroon a jóge ci assemblée ah, nationale. ah oui mu waroon a def par exemple. non je ne sais pas parce que nekkuma ci majorité la preuve bon ñoom fooy woyofal nañ ko c' est ça notre problème c' est le problème c' est pas Dembourou hein le problème c' est le pouvoir à commencer par le président de la république. mais sanction bi lan nga yaakaaroon ni moom la waroon a mën a. non dañ koy dàq ci dañ koy fexe génn assemblée wala dañ koy def ni ñu defoon Moustapha Cissé Lo dans un premier temps après ñu xool. wala non vraiment nag ñoom ñoo xam li ñuy def. waaye daal jàpp naa ne war nañu jël seen responsabilité ba peuple bi xam ne kii li mu def keneen dootu ko def. moom la ma ko mën a laaj quoi faisant du yow tey. loo gis ne moo war a doon moo moo ci war a topp. comme moo tax ma ne la warta ne waratu te nekk assemblée. Ah, loolu la déjà moom mooy moom nga njëkk mooy war nañ ko fa ah, jëlee. ah oui oui sama question xam naa ci ci question bi lay des ba tey waaye au-delà de démburu ak gis-gis bi nga xamante ni am na ko ci relation bi mu am ak pouvoir ndax gar conserver pouvoir rek moo ko jaral lool. gis nañ ne tamit boo fii ci soriwul trop gis nga Alpha Condé gis nga Guinée tamit ci situation bi mu toll am na ñu fa jot a ñàkk seen bakkan damay wax ne bu doon benn rek la sax ëpp na. boo xoolee Côte d'Ivoire c'est la même chose. la même situation. Mm-hmm. boo xoolee donc en 2012 aussi. diggante troisième mandat bi baax na ak baaxul war na dem ak warul dem def na am na ci ñoo xamante ni ci lañ ñàkk seen bakkan lan mooy sunu problème sunu diggante ak mandat sunu diggante ak pouvoir ba jamono bu nekk muy yóbbu mu ñuy yóbbu ci yenn excès c'est le système post-colonial bu fi tubaab yi teg te ba tey jógee gu fi. tubaab yi jógee tubaab yi. ah mais maître euh, tubaab yi def. ah waaw mel nga tubaab yi trop ak. Euh, tubaab yi li ñu def dafa garaaw trop xam nga. non bëgguma laa dagg kon nel ci ci ci euh, <laughs> kii la rek bu ma la ubbi noonu parce que ma gis lu ne rek nga tubaab yee ko fi dañu def deuxième guerre mondiale bokk ci ñi gagné Hitler la fascisme et le nazisme de Hitler ñu baree baree bare ci suñu maam yi ñàkk fa seen bakkan ñu xam fa tubaab parce que li feet de mu ñëwoon Europe xamuñu tubaab tubaab bi ñu xam mooy bi ñëw fii di dëggaate di nguuru ñu dem fa bal tàkk tubaab daw ñoom ñu jàkkaarloo ak gars yi donc ñu xam ne tubaab yi <laughs> ñoom ñëpp a yem ba yëf ya jeexee ñu ne waaw nun kat danu nit dana bëgg bëgg suñu liberté danoo bëgg suñu liberté tubaab yi de Gaulle Brazzaville 1944 ne leen daal loolu moom du mën a ne mën na noo fexe nag ba ngeen di yóbbu ay député assemblée nationale française Indochine ne leen non ñun d'accorduñ ci loolu jël mhm. cent ngànnaay 1954 Jembeen Fou benn kii la mhm. kiwet mhm. aw aw aw xur vietnamien yi rey ci tubaab yi ay junni junni junni junni ñu daw Indochine euh, teqali ko ak français yi évidemment américains yi ñëw nañu par la suite mais bon bref mhm. mais avant lool suñu maam yi bañ jógee ci kaso yi nga xam ne dañ leen fa allemand yee leen tëjoon kaso biir France parce que Allemagne moo moo moo moo moo. annexé woon moo annexé woon France di fanaan kafe café dégg nga euh, bi nga xamee ne euh, jóge nañ ci kaso yi leen allemand yi tëjoon indi leen fii caaroy ñuy laaj seen solde pour mën a ñibbi ñu rey leen. massacre leen. camp de Thiaroye. massacre camp de ñu bare dañu jàpp rek ne way Euh, dañ doon laaj sol duñu non tubaab yi seen message boobu ñooñu ñu rey du jeex du xaaj li mu doon tekki mooy bu leen laaj indépendance Madagascar 1947 téeméeri junni nit lañ fa rey parce que dañ ne nañ ñu jox suñu indépendance lii moo indi Algérie tàkk 1956 Ah, De ñëw gis ne moo affaire bi mënta wëy moo indi indépendance yi ñuy wax dama naan loolu nag xam naa baykat yee koy xam sànni ngal yóbbu sëf maanaam euh, xam nañu ne africains yi léegi ñuy def comme Indochine comme Algérie guerre bi day tàkk te bu boobaa lépp lañuy ñuy ñàkk ñu ne kon nañ leen jox indépendance am na ñoo xam bëgg ñu Euh, euh, sunu <laughs> maam Oufet bëggul woon. Côte d'Ivoire. waaw ah, yi na ko non non baax na bàyyi rek ñu jox la. <laughs> ngoog euh, bu ko defee kon. nga nekk un préfet. <laughs> alors donc De def débrouillé na ba système bi des. waaye nag amatul commandant de cercle bu weex ay yooyu amatu fi mais amul différence donc loolu moonu gaañ. constitution yi ñuy wax mooy lama leen doon xool leen tànk nee naa leen conférence nationale yi do yi amoon lan moo indi conférence nationale discours de Mitterrand de la Baule toujours mhm. France lañ koy lañ lañ mais quand kon li may wax ni euh, Mohamed mhm. dañu koo def <laughs> léegi lu ñu teg bët léegi euh, bi euh, Mitterrand daf ne affaire bi nag franchement seet leen ko waaw ubbi leen affaire yi def démocratie 90 Hissène Habré ne man du ma ko def li ma neex laay def décembre xaw ma novembre ñu daanee ko mu ngi fii ci kaso Sénégal c'est ça la vérité donc tant que constitution yii ñuy werante deuxième mandat troisième bu ngeen gisee man duma ciy sawar parce que garab gi ñu war a buddi buddi ko ne ci car yi ak xob yi di wax constitution bi lu ñu ci war a def. waaw c'est ça qui me fatigue. mais constitution bi lu ñu ci war a def maa ngi ñëw ci ci loolu. Hmm. Euh, c'est ça qui me fatigue. bàyyi ko mu buddi garab gi. maanaam hmm. maanaam maanaam maanaam constitution. Hmm. Sénégal wala Afrique. quatre-vingt-dix pour cent des Africains francophones. xamuñu luy constitution. am déet xamuñu ko waxuma la nag sax di xam la ca ne. ñan la concerné les élites. formé à l'école française ñoo fi ne di wax bët bëccëg constitution article nangam nangam nangam c'est bon il faut en parler parce que c'est le troisième mandat mais non nañu dem nag ci dattu garab gi daane ko gas reen yi buddi ko suñu ko defut duñu régler dara et ça moi je parle date de assemblée constituante ba président Macky Sall ne damay réformer Euh, constitution bi. 2016 révision kon. dama ne révision réforme constitutionnelle ou révolution républicaine ok peuple sénégalais bi tukkuloor a nga fi séréer joola wolof mandeng soninke xeet euh, yëpp euh, basari yëpp a ngi fi mhm. ku ci ne am sa récit Euh, jullit yaa ngi fi waa jàngu baa ngi fi waa xërëm yaa ngi fi ku ci ne da am sa récit ak yeneen ak yeneen ak yeneen na ñëpp toog loolu la ñuy wax consti assemblée constituante bu laajee ñetti weer ñu toog ko bu laajee juróom bi benn weer ñu toog ko waxtaana waxtaan waxtaan ba ne nii bu nu ko defee réew mi dina am jàmm ak salaam dina am tekk ak dal. est-ce que loolu dafa wuuteeg. ma yeggale amoon te boo loolu pare ñu woo constitutionnaliste ne leen lii nu juboo dem ngeen leen ngeen codifier nu ko fii dañuy woo constitutionnel ah way Mohamed ah, ah, agrégé de de euh, <laughs> droit constitutionnel rëddal nu constitution c'est pas vrai c'est pas les constitutionnalistes qui doivent faire des constitutions c'est le peuple qui doit fair une constitution naa ñee dañoo jàng am xam-xam ñu ne leen codifier leen nu ko defuñu ko topp di lang-langee constitution tubaab yi léegi yaakaar ne dinañ ci génn parce que constitution du dara pour ñoom mais mais mais mais la preuve honorable ah, oui euh, balaa Mohamed di jëli Mamadou Ndiaye. Mhm. Euh, question bi tonto goo ci ba léegi de question Pape Djibril bi ci mandat bi. nan la ñuy def ba régler problème mu mandat bi de manière définitive. parce que fi nga jëlee ji euh, tontu da ngay def assemblée constituante. <laughs> def constitution bu bees. boo xam ne man mii mënuma laa wax la ca ne. Mhm. ñëppay daje ñu wax li ci war a ne ba lii dootut am. mais constitution bu bees defoon nañ ko. loolu du constitution. Ah. yooyu itam mhm. sëñ bi. lu mu doon réforme. mu ne. révision ma ne lu mu doon lu constitution non ay kayit la du constitution nee naa la tant que daje askan wi daje wuñu. mais nan ngay dajalee askan bi. assemblée constituante ngay def. mais comment maanaam maanaam li naan force vive de la nation. ñan la. ah <laughs> mais def nañ fi assise def nañ fi CNRI yooyu yëpp. non yooyu xam nga. assise nationale question parce que <laughs> waaw moo tax ñun tam dañu bëgg a xam boo ma laajee hmm. bu ma ci duggee. Hmm. am na nu ma ciy duggee dañ naan mais kii kon moom li muy wax est-ce que. gëm na ko non parce que cadre bi cadre général cadrage bi laa lay jox. bu ko defee comme ñoo ñu ma la wax ku nekk yónnee ndaw. mais ñan ñooy les forces vives de la nation ñan la. xam nga boo nee euh, lan mooy force vive de la nation. xam nga damay daal di lim su ma limee juum. fàtte waaw wax na dëgg nag am na ñu fàtte bu ko def loolu lay wax dañoo gaaw non xam nga xam Pape Djibril dañ naan dañoo gaaw ci dañoo xeeb loolu lay bañ. honorable bu lim bu ñu ca yeggee. moo tax bi foofu non bu ñu ca ah. na am ñoo xam ne ñooy toog. Hmm. daal di cay waxtaan. man xeetu moo tax man toog bi moo ma yitteel xam nga buñ ne fa am ñu war a toog. nga am assemblée na waa ca Binta. non non hmm? bu fekkee bu fekkee bu constitution bi këyit kese la ban constitution moo dul këyit. mooy buy génn ci assemblée constituante mais sëñ bi du këyit du këyit du këyit kese. Ouattara hmm. du defar na constitution. Hmm. daal na deux du am. ñu jóge ca mu ne dama koy def. Macky sàll mii euh, ak kanati Alpha. Euh, ak kanati euh, même Niger gële Macky Sall àggagul foofu de. ma ni Macky Sall àggagut foofu. àggagut non non moom nee na du ma ko def. moom nee na euh, mu tuddati constitution bi nee na maa ko rëdd. constitution bi maa bind. maa ko bind wala mhm. ans la woon. Mhm. ma ne cinq waaye dama caa yokk nul ne peut faire plus de deux mandats constitu consécutifs. de sept ans ne waa ji ne waa ji loolu leerul journaliste bi seen confrère. jo am ah loolu kay leer na mu ne kon alhamdulilah. mais ko deux mandats consécutifs de cinq ans la wax waxte xam nga foofu it dëgg non non non waxu def naa sept ans changé nañ indi cinq ans. Hmm. waaye pour di pour tuer d'ailleurs day daf ne pour tuer loolu la wax de. Hmm. pour tuer le débat. Hmm. j'ai dit nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs pour tuer le débat loolu la wax. très bien Binta. Mm. man dama bëggoon ñëw ci sa ci sa ci sa jaar-jaar ndax euh, dama la naw ci bi ma xoolee sa taxawaay ci mai 68 ma xam ne justice social lu la ñoroon la mais bu ma xoolee après sa trajectoire de PAI defe naa à JPADS dinga nga combat yi nga mené dans la clandestinité xeex ba ñu reconnaître seen partie ak fi nga egg si man dama yaakaaroon ne je me suis est-ce que c'est tout ça pour ça kii lu mu xeex yëpp lu mu xeex yëpp est-ce que période bi war war warloo woon nekk ci beneen stade comme du ma guma sax lim euh, ñenn ñi nga xamante ne yéen jaar bokk ngeen trajectoire ak fu ñu yegg si tey bu ñu gisee tey ji Mamadou Diop Decroix xeex par exemple ba jël AJ/PADS moom ko dissoudroon ko dans le PDS jékki saay bàyyi PDS ñëw ci présidentielle bi dugg ci IDI 2019 nekk réellement je te dama lay considérer comme koo xamante ne daal éternel éternel transhumant la bëgg a doon wala lan la bëgg a doon ci taxawaayum li nga xeex yépp ci sa àdduna ci wàllu politique tey jii ak fi nga yegg si daal je me dis que est-ce que daal euh, ça en valait la peine na léegi fan laa yegg si wax ma fan laa yegg <laughs> ah parce que xaw ma xamuñu tey foofu fan fan nga féete nii fan laa toll non pour man éternel transhumant laa la laa la mën a qualifier hmm, parce que fi nga jógee ak fi nga excité ji nekk un politicien toujours waroon pour man waroon nga dépasser transhumant parce que waxtaan wi bu ñu bëggee mu neex waaw dañuy firi quand même baat yi bu ko defee tontu li mën a par exemple transhumant mooy lan maanaam yow jóge nga sa xeex sa sa trajectoire laa jaar euh, brossé naa ko xawma ci lu bari mais xam naa ne jaar nga fii. alors léegi ma yegg si si PDS parti bi yàgg Landing Savané. léegi ma expliqué la nangu ko dissoudre sa parti si biir PDS. léegi ma expliqué la présidentielle bi nga bàyyi PDS ñëw Idy 2012 2019 léegi. très bien bon jàpp naa ne laajin la daal. waaw ah. mais dinaa ci <laughs> laajin la. dama ah, yaakaaroon ne war nga dépassé foofu daal. fii ah, waaw laa laajin la. mais euh, mën naa laa tekkil transhumance aussi ci wolof de. voilà xam nga dégg naa ko mooy laajin. Mhm. d'abord nañu dàq transhumance ndax transhumance mooy jóge fu wow dem fu tooy. màngalkat mhm. jóge ci euh, nu mu tuddati ak tàkk. dem ci gàncax. Mhm. looloy transhumance man maa ngi ci opposition. Mhm. bien euh, deuxièmement euh, loolu nga wax ne ba ma duggee ci politique fukki at ak juróom-ñett laa amoon nekk délégué général du lycée Van Vollenhoven actuel Lamine Gueye mai jàpp nañ ma fukki yoon tëj ma kaso juróomi yoon biñ ma mujjee jàpp mooy 2018 Macky Sall jàpp na ma ñetti yoon diggante 2012 ak 2018 ku mel noonu topp ci nit mënumaa topp ci nit dafa am lu ma gëm te loolu laa gàddu booba ba tey di ko doxal nit nag mën naa bañ a comprendre ci benn moment eh, nu mu demee mais maa ngi lay gërëm di la sant ci laaj bi Ehm, sunu parti ànd jëf ba mu nekkee déjà MRDN dafa dafa def liggéey bu ama am solo ci dajale opposition ñëpp a ngi may déglu kenn du ko weddi ci opposition lu ne daj nañ ko ci dajale opposition jóge ci MRDN ñëw ci PADS di ci liggéey toujours Euh, loolu moo indi 1987 euh, ñu taxawal cinq ñu taxawal ADS Alliance démocratique sénégalaise booba parti opposition bariwuloon mm-hmm. enfin parti yi sax bariwuñu woon léegi am na 300 300 yi 200 yaa ngi ci Macky Sall <laughs> moo tax bu ñu naan fële waaw yéen député yi. Euh, euh, plus fort ma ne yéen seen 49 pour cent yi diviser leen ko par 200 <laughs> seen ba xam nu ngeen di am non c'est pour rire euh, la taxaw ADS di xeex booba la ñu détruire cité millionnaire gars yi yóbbu bulldozer daane kër yi ñuy xeex di xeex di xeex ñun 88 amoon nañu candidat Landing Savané 93 am nañu candidat Landing Savané élection législative mësuñu ànd ak kenn soxna si 2012 maa dirigé la liste du parti àndu amuñoon benn coalition te bu ci ne am nañu ay représentants assemblée nationale benn coalition la ñu mas a am muy 2017 parce que boobu dañu bëggoon opposition bi yépp ànd nekk benn pour changer assemblée nationale euh, Khalifa Sall euh, ji génn ci li ne Karim Wade génn ci li mu ne loolu lu ne daj naa ko ci man personnellement mais mujjul sotti euh, président Wade yàgg na noo ànd coalition mësunoo nekk PDS mësta am ñu nekk coalition ak ñeneen 90 ñu taxawal CONACPO foofu laa miinante ak président du ma woon secrétaire général mais maa doon représenté parti bi ci réunion yi et cetera ñu miinante bon su korité tabaski jotee damay ànd ak sama waa kër ñu dem point et cetera léeg bu ma demee toog wax maanaam daal amoon na am nañu cofeel et puis dafa am euh, ay conception yu ñu bokk surtout panafricanisme surtout panafricanisme. kan président Abdoulaye Wade. waaw euh, ba noppi. xam président Wade libéralisme bi muy wax ma profito ci leeralal leen ko programme fondamental u PDS xam ngeen lan la socialisme travailliste socialisme travailliste deux mille euh, mille neuf cent soixante bi Wade amee député Senghor ne non yow droite ngay dem parce que man maay gauche Wade ne ko non man maay gauche yow droite nga comme Senghor moo moomu yoroon pouvoir bi looloo indi PDS droite hmm. Abdoulaye eh, Senghor dem international socialiste hmm. Abdoulaye aussi moom xam du dof hmm. daal di dem international libéral daal di doon liberal man toujours bu ñu toogee dama ko naan doo libéral les la bourse pour tous à l'université est-ce que c'est du libéralisme c'est du libéralisme socialisme banque mondiale ñëw ne ko waaye vraiment ki mu ne ko non mu ne waa banque mondiale c'est un investissement c'est pas du social c'est un <laughs> investissement. pexe Abdoulaye Wade la. Hmm. pexe ay pexe. très bien euh, bala ñuy sori euh, Mamadou Ndiaye. ah mais mais damaa bëggoon a terminer foofu. donc waaw parce que internaute ñi ngi ak seen i te war nga ci tontu te euh, gi uh-huh. ay alliance la woon. bi ñu ñëwee ci élection bi. Hmm. man ñun suñu parti. bi ñu demee ba mënuñoo am def nañu congrès boo xam ne y avait 3000 personnes congrès d'investiture mais ak affaire yi ni mu demee pare parrainage jàppal bàyyil ñu ne bon nañ jàppale euh, le candidat du PDS Karim Wade Karim Wade euh, candidature am retenir ñu ko président Wade ne bu ñu bokk ci élection yi nous on a dit non dañuy bokk ci élection yi parce que élection yi peuple bi daf ci bëgg a daf ko soxla daf ci bëgg a bokk kon ñu fokk ñu bokk ci donc soxna si. a ngeen demee ci Idrissa Seck. waaw ñu jël est-ce que la foofu ko woon nag. mu ne est-ce que loolu toog gënu ko woon. est-ce que. toog bañ a bokk fenn leen Abdoulaye Wade waxoon. non non non non non non parce que. bon kon ma yeggale après ma ñëw foofu <laughs> donc li ma la bëgg a wax pour terminer mooy ñun dañu am souveraineté dañu am indépendance. même président Wade bi mu nekkee président de la république daf ko daan wax de croix li ma neex ci moom mooy li mu xalaat la lay wax nee na c'est un homme sincère désintéressé ak ñetti yëf loolu la waxoon loyal il est loyal il est sincère il est désintéressé ci te ci mbooloo la ko wax te mu ngi ci euh, internet bi donc ñun nu noonu daal voilà mu ngoog léegi ñu ñu déglu internautes di no dama dama doon euh, dama doon dama doon kii rek mais internautes yi aussi